dikkati na fukki nit ak ñeent la ñu fekk daanaka ñu jeex tàkk desee yax ci génn gaal goo xam ne ña ngi ko fekk ca république dominicaine turbine yéen kaay naan maan ma nga bàyyeekoo ci màngaan goo xam ne tegewul ci yoon ay nit yoo xam ne dañoo yàqu yàqu goo xam ne maar day taali ay document d'identité ñu fekk ko ci ñoom bañ leen xoolee bu baax mu doon ay doomu sénégalais waaye tam ay doomu Mauritanie ña nga am diggante ñaar fukki at ak ñeent jàpp fanweeri at ak ñett l'enquête ko di naan kon la am San Juan na waar jéggi na dayoo gaal goo a ca république dominicaine ba daal di teer ñu fekk ci biir gaal gi fukk ak ñeent ciy doomu aadama yoo xam ne dañoo faatu lu yàgg ma ni la ba seeni yax daanaka moo des Boubacar Seye horizon sans frontière sàkku ñu bépp information judiciaire taxawal tamit ay assise ci màngaan gi nga xam ne mi ngi bëgg a jeexal sunu ndaw yi Marie-Louise Ndiaye journaliste naan dee da ngeen di doog jot ci foto yi moo tax ngeen yéemu waaye cas bi njëkkuta am xanaa kay photo yi la ñu partagé wul woon daan ko làq waaye la daan am daal moo amati sunu wax yi Le Quotidien Le Quotidien naan kon cay màngaan gi ma ngay jeexal xale yi ay sénégalais ñaabar ñaabari ba karayib ñu fekk fa seeni néew vox populi naan kon ñu fekk fa kay seeni squelette fukk ak ñeent lañu di doomi sénégal ak mauritanie fekk nañ ci ñoom it fukk ñaar ci paquet yoo xam ne ay cocaïne la def di sineebar libération yéene kaay naan kon ci xibaar yi gaal gaa nga jëmoon ci europe daal di réer vox populi naan kon fii ci ndarit am na geneen gaal goo xam ne suuxati na am ku ca ñàkk bakkanam beneen xale bu jigéen it réer mër ñu koy wër ci géej gi turbine yéene kaay naan la ñuy laaj ndax réerul bu Ousmane Sonko ak président Diomaye ñu war a nag ñaabar ñaabari jëm ci élection législative bés bi la jour naan ko déet élection législative ak élection locale ñaar yi nag mbaa ñu ko boole def ko génn ci élection ndax nag lu ëpp ci société civile bi ngir wàññi dépense ci tëggum élection ña ngay sàkku nag ñu daal di boole ñaari élection yi tëgg ko muy génn Macky Sall ci juin 2023 ma nga naan organiser naa fukki élection ak benn ci fukkeet ak benn te loolee amul sens benn ñaareel bi mooy la mu goqi sunu gafa ñu dépensé ko ci xaalis bari na ba jéggi solo lii société civile bëgg nag mbaa fekkul kuy tëdd wéet ak ko amul fu mu fanaan nga xam ni tëjal bunt bi du leen boole ndax nag régime bi ci boppam su tëgee élection législative bàyyi élection locale assemblée nationale bu nooyee ci moom it nepp gi moom da koy dégg rek waaye du ko dund mukk ci maire yi ndax juróomi téeméer ci ay maire ak i conseil départementaux yu bennoo bokk yaakaar mi ngi ci réew mi coow la nag moom moo di ndax dëgg-dëgg mënees naa seeyal collectivité territoriale yi direct news naan kon laaj ba samp jamono ji ci réew mi moom moo di déclaration de patrimoine ak déclaration de politique générale bi nga xam ne fi mu ne nag moo tere ne la Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko laaj ba mooy ndax ba nii def na déclaration de patrimoine ndax am na ci sénégalais yoo xam ne ña ngi koy tuumaal naan dafa yor alal Madiambal Diagne ci boppam moo ko jiite naan Ousmane Sonko du ñaabar ñaabari mukk def déclaration de patrimoine ndax fonctionnaire multimilliardaire la weddi tuuma du ragal setal sab der la moo tax ay sénégalais naan kon Ousmane Sonko xamleel sab am-am beneen bi mooy déclaration de politique générale am yéen kaayu Pape Diogoy Faye bi naan ci taarixu waxu réewum Sénégal boobaak léegi amul déclaration politique général boo xam ne daanaka xumbee na nii waxee nañ ci nii tey yàkkamtee nañ ko nii avril 2024 bii rek lañ ko fal boobaak léegi ñi ngi wax ci déclaration de politique général bi di xaar mo am dëgg la ay jooyanti war na am ci réglement intérieur bu assemblée nationale te ñi ngi ci nag waaye premier ministre dafa mel ni kuy moytu assemblée goo xam ne mën na ko tegal motion de censure à tout moment les éco yéeni kaay naan kon ak lu mën a am moom Ousmane Sonko ma nga ca jubanti recrutement yo xamné yu chef d'organe exécutif ay entité yu secteur parapublic la appel à candidature la ci woté ay projet wu décret d'application weer wi ñu génn ñu war ko présenter. yene kay bi nan man ndax ben code général bu éthique ak déontologie yu agent yu secteur public bi ñanga ca 24 heures yene kay nan man mom Ousmane Sonko jubal de ko bëgg digënté éthique ak déontologie mu woté ko ci réew mi premier ministre sakku ci ministre mi ñu djébal conseil bi ci weeru 2024 bi projet de loi bo xamné code général général d'éthique ak déontologie lay doon ñu jëmale ko nag ci agent yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur public bi les écoles yéen a kaay naan jeexalaguma ci xale yi nuróole ay yére ci l'école yi di uniforme scolaire Ousmane Sonko naan école bu samp ca quartier ba tailleur ba fa nekk nañ ko jébbal liggéey bi moom président Diomaye sàkku daar daar ñu seeyalaat politique bi nga xam ne couverture sanitaire universelle moom lay doxee critique yéen a naan man coow laa nga ci assemblée nationale de ndax opposition bu bees bi ci boppam dafa fas yéene am ndam ci assemblée nationale ngir mën a jaamaarloo yees bi régime bu yees bi it la mu dund ci wàllu politique ci réew mi lañ ko dundaloo teg ko ko ni ki métit ci réew mi mu fas yéene moom it am majorité ba ngir mën a dérouler la nga xam ni moom la fas yéeneel sénégalais yi laas yéene kaay naan kon lañ fas yéene laaj ba mooy ndax rupture bokk na ca Dakar Times naan kon ak lu mën a am boobule rupture moom bugaan géy dani ko ma ngay wax ay dëggam njiitum réew mi ak PM am Ousmane Sonko yéene kaay bi naan maan njiital sa bopp lee jàmbaar ma ngay def la mu baaxoo di juger nag ay la république Bassirou Diomaye Faye ak premier njiitalam Ousmane Sonko ni ki démb ci émission faram fàcce ma ngay xam le ni la Ousmane Sonko gàddu fi mu toll nii bopp baa ko àttanul naan leen it wax leen sénégalais yi la nga xam ni moom moo am ci protocole ba ba ngeen génn kaso génn soppi jikko soppi doxalin soppi discours wax leen ci dil gi nga xam ne am na ci ndoddu sénégalais yi wax na it ci campagne de désinformation boo xam ne ña ngi koy def jëmale taskatu xibaar yi ba tey ay tasu xibaar di tëj ci réew mi Babacar Ba forum du justiciable ne gouvernement gi ci boppam na tàmbali waxtaan ak taskatu xibaar yi la taskatu xibaar yi di dund ci réew mi mitti na diggante salaire yoo xam ni ma ngay tardé ay quotidien yoo xam ni tàbbi nañ géej jafe-jafey koppar yu am ci kees yi faw waxtaan am ndax réew moo xam ni am nag démocratie waxtaan dëgg-dëgg mënta ñàkk diggante ña ko jiiteeg taskatu xibaar yi turbine yéen kaay naan ko nag lu mën a am jàppal nit war nañu tàbbal géej te du yàgg fukk ak ñetti ligne aftu yoo xam ne dana tax ay xale yu bëri dem ci chômage vox populi naan kon ak lu mën a amit jàppal ni coppet ci bii teg ci bee ne ko rajax am na ci diggante gouverneur yeeg préfet yeeg président Diomaye soppi na lépp juróom-ñeenti góor gouverneur ci fukk ak ñeent yi nga xam ni moo am ci réew mi soppi nañu leen Al Assane Sall jóge ci Ndakaaru tàbbi ca Saint-Louis yéen kaay bi naan maan waxtu woo xam ne ñenn ñaa am promotion diggante jajaaja préfet bu saint nekk léegi gouverneur bu Sédhiou madame Ngone Cissé préfet bu Guinguinéo nekk gouverneur bu Fatick Saïd Dia préfet bu Guédiawaye nekk léegi gouverneur bu Matam Moustapha Diaw préfet bu Kaffrine nekk léegi gouverneur bu Kaffrine Moustapha Ndiaye préfet bu Pikine nekk léegi gouverneur bu Kolda yéen kaay bi naan maan waxtu woow sous préfet bu Dakar Plateau tàbbal nañ ko géej point actu naan man oto lu mu xat ba tax na lu mu xat-xat jàppal ni président Macky Sall day jëf jëf joo xam ne dafa dem nag bàyyi ko fi diggante Barthélémy Dias ak Idrissa Seck mbaadu nag ca xat ca xateewul seen ëllëg ci wàllu politique moom Barthélémy Dias ak Idrissa Seck daanaka fi mu toll ni réer nañ ci langu politique gi moom maire bu Ndakaaru samp fi mu toll ni nag di xaar fa yàllaaxu sàkkuteefuk ministre de la justice ngir day ñàkk post député am déet moom Barthélémy Dias digganteem ak Ousmane Sonko ñagas taxawu Ndakaaru bokkatul ci yeewi askan wi waxtu woowu ba samp mom modi ndax Idrissa Seck ci bopam président Macky Sall waru ko ndax ay liet ku ci melni ni Yankhoba Diattara ci bopam ken déggatu leen ak lu meuna mbok ñu ñaan jàmm te ndoog jàmm Sénéguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal, vous a offert votre revue de presse.